a ah, kii yéen a ko doon laajte si na Assane Ndiaye ànd ak waa Bawol production dëgmal bés bu mag la le 22 mai ci stadium Iba Mar Diop dem jëli ji Mbaye Diouf mbër kaamin bi champion bi ndaanaan bi daal di koy booleeg doomi mbër mi Youssou Ndour bu Balla Gaye numéro 1 ci bésu vingt 22 mai Cheikh Super Jamono ci lay jàkkaarloo ak Boy Sey numéro 2 carrière dina fa jàkkaarloo ak góor gi waaye combat bi ñëpp di xaar diggante Toubacouta ak Malen Niani Mbaye Fëgala dina fa jàkkaarloo ak Bébé Saloum 3 ak yeneen juróomi combat ci bésu le 22 mai kon mbokk yi ñoo ko déggandoo rendez-vous baa ngi noonu Assane Ndiaye ak waa Bawol production Iba Mar Diop du leen yëpp te du leen mës a yëpp ba mukk li ko waral mooy heure bu ñu tëggee mu neex am aada am cosaan waaye dañuy tëj buntu yi ràpp ndax fees booy bopp nekku ci nag ñaar sama mag la ko ko. mais ngeen a dof wala lan mooy seen problème. waaw waaw deux fois mu ne ma xoy. mais ñii ñii yéen yéen a dof yéen. waaw baal ñu. ah, ah sëñ ngi jéem mais xanaa gisoo lu ñu def sama pare-brise bu ñu toj nii pour lan. dinañ ko lijjën sëñ bi maa ngi tuub. bàyyi sama yére bi bàyyi sama yére bi léegi. paa bi dafa seer soo fa sa pare-brise nga naan. bu baax fenn la am. dañuy dem Njaay global business. monter la pare bu baax man dinaa ko fay moom nit ku baax la bu ñu demee expliqué ko dina ci jàpp. nga jéggalante yàlla waaw waaw waaw mais ñii kon dañoo dof. une société purement sénégalaise. Ndiaye Global Business xarañ loolu ci seen métier.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 76 98 76 532 64 17 Ndiaye Global Business mbégte kese la. asalaamaaleykum mbokk internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar te leen bëggee ñuy suivre sur Kewel Info tey nag ñu ñëw fii ci Colobane ñëw c'est champion kon ni ñu ko defee rek ci Guiro en route vers le 29 mai le 29 mai nag mu nekk journée Ndiaye production ba pare yamul foofu rek mu nekk 15 ans yoo xamante ni. Fallou Ndiaye ba mu duggee ci làmb dañ koy célébrer ah tey nag ñaar Gris ak Tonnerre de am opportunité pour bëree loolu noonu mu nekk loo xam te ni ñun ñëpp ñu ngi koy waajal kon nag en route vers le 29 tey ah, dañoo fas yéene waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy Tonnerre dégg nañ adversaire am wax xam nga ñu waxtaan ak moom fan la tool ci préparation yi Tonnerre maa ngi lay nuyu. auzu billaahi min seytaani rajim alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw ban sante yàlla julli ci yonent bi. di sant suñuy waajur di profito di nuyu suñu waa dëkk Touba gi Touba Toul maa ngi leen di nuyu di nuyu suma supporters yi fépp fu nit nekk di bëggee tone rek maa ngi lay nuyu di la sant di la wax ne bés bi seen bés la waaw dama bëgg saa ma geesoo rek ma gis leen seen ginnaaw di nuyu en passage waa Colobane gi nga xam ne nii fi laa juddoo fi laa yaroo di leen nuyu bu baax a baax di nuyu suma su Max maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm. parce que amel naa ko njukkal waaw télé source si laa koy kii njukkal boobu noonu di nuyu tamit coach Moussa di nuyu Didier di ñaanal suñu mag suñu mag suñu xarit Moussa Dioum yàlla suñu borom yërëm ko te xaare ko ajana di ñaanal bépp mbër bu fi jógee bépp ko fi jógee ñu ngi lay ñaanal Moussa Balla Gaye kaaw kii euh, Moussa Balla Gaye comment dire ki dëkk Tëngéej Papa Yade ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal gay naa ko ñoom ñëpp. di nuyu suma gars yi ma àndal fii nag di leen nuyu bu baax a baax di kontaan ci ñoom tamit ci taxawaay bi ñu ngi rafet rafetlu taxawaay bu baax a baax a baax di woon nag suma monsieur le maire Ahmed Dieye Ahmed Dieye maa ngi koy woo ci combat bi mu jàpp ci biir ndax Fallou Ndiaye dama bëgg a defanteeg moom woon ko ne tonnerre mi dafa bëri mbooloo euh, di ñaanal sama euh, président Thierno Ndiaye ñib si na moom dafa war a dafa demoon euh, dafa demoon Arabie Saoudi mais ñib na waaw moom dina jàpp ci biir yi maa ngi koy bu baax a baax waaw. am na solo mais dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy côté préparation bi instant bi Tonnerre fan la toll ndax sa retour gis nañ ne nga ci arène bi sa retour nu ko koy waajee. waaw retour Tonnerre de nag lu ñu pare la doon lu ñu pare loo xam ne dañ koo pare pare togg ko ba mu ñor yaakaar naa ne yekk rek moo ci des te incha allah le vingt bu Tonnerre yekkee ku dugal loxoom li nga kontaan incha allah rabi waaw. Euh, côté entraînement foo toll ndax suma juumul moom yaa ngi ci dernière séance yi ndax li ci des bareetul dimanche bi di ñëw la bis topp. waaw entraînement yi ñoo ngi ci ñoo ngi ci ànd ak suñu coach su mag suñu coach su Moussa coach su Moussa moo nekk ci wàllu boxe bi coach su mag moo nekk ci wàllu salle bi lépp rek ñu ngi ci pare nañ lépp daal combat bi combat bi lépp rek pare nañ ko lépp lu ñuy waajal la làmb comme làmb la wax pare nañ ko ci côté yëpp daal waaw pare nañ ko ci côté yëpp ñu gis ni yàgg sa adversaire dalal nañ leen Tonnerre ñu bari ne dafa énervé wu da nga doon napp mbër mi wala dafa am loo xam ne lu mu la wax lu la déranger sa diggante ak Guiro Seras ndax dégg nañ la nga ni ah, manque euh, adversaire la comme yeneen adversaire yi mais bu dul woon torof torof du ko jël. waaw non làmb la làmb la maanaam dañuy pare ni ñu war a paree rek euh, boo gisee ma wax ko kàddu googu maanaam nekkul ne. dama ko xeeb wala dara adversaire la comme adversaire yëpp mais dama leen ne làmb bu waxoon dégg sama côté du man ak Guiro Seras man nii laa mel naturellement man keneen ku du Guiro sax mënuma énervé ci làmb parce que man ma demee ba ñu naan Tonnerre dafa énervé wala bu toogee giro ci plateau dafay mel dafa énervé non loolu du nekk ci man man nii laa mel naturel noonu laa mel naturel waaw. làmb bu waxoon dëgg ay jafe-jafe moo ñu boole man ak moom comprendre ga ñi ma bëreel bëreewut ak ñoom ñi ma daan daanu leen. kon yi nga bëreel ñoo gën a danger Giro. Giro non Giro du kaa. no du kaa de. xanaa seetaan ba pare lu garaaw la def dafa dugg fii duggaat fi. Tonnerre ngay waxal nii taalibe Serigne Fallou bi taalibe Serigne Fallou bi ngay waxal di profito di ñaanal mun Mountakha mu yàgg fi lool buñ bëree la 29 ba pare. xooli ko ndax le 29 fii la ko war ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér di ñaanal Baye Karim Baye Karim Mbacke mu faalilu maa ngi koy ñaanal wér ak gudd fan maa ngi koy ñaanal wér waaw man taalibi suñ faalu la kon ñoo gën a oos man fi ma jaar kuñ ne daan nga musik daan nga booy Diop daan Youssou Ndour ah daan Petit Niang ah, ah, daan yokk non man ñi ma daan may toog fii di la ko xal sama loolu parce que du question nag ma xeeb ko man du ma xeeb mbër cër laa ko jox cër bu mat sëkk laa ko jox moom Guiro Seras waaw. fekk fa lu ko raw moom Guiro seetaan nga interview waaw seetaan naa ko xam nga nii nga ñëw fii mënuma ñàkk a wax force damay wax fii kuñ fi jëkk micro rek di nga wax mais na fekk la ngay wax nga gëm loolu man Tonnerre kenn du jouer bataille psychologique ci man. ndax dama liggéey sama dama liggéey liggéey bu wóor te sama mental bii dama ko liggéey lépp lu waaye di lal rek xam naa ko. waaw na def ndànk rek na def ndànk bu la suuf si. ci ban côté. bu ñu tëjee barrière yi. bu arbitre soufflé. baax na Fatma. moom nee na góor mosu koo diriger te nekkul ne yow yaa koy diriger nee na yow instant bi moom li jëntiwu la li ngay parce que nee na yow sa cas da koo classé. am na ci plein droit moom ci loolu mu wax am na ci pele droit. waaw. moom du arrière loolu moom xam nga nit ñaa ngi seetaan Giro seetaan nañ ay combat du mos a reculer góor loolu moom wax dëgg si yàlla moom moom am na yoo xam ne war sax toog di ko wax nit ñi toog di seetaan say combat nga ne du arrièreal kenn loolu ay wax la rek le si bu ne dung wallaay dana reculer waaw. moom nee na ñaan moom nee na musul bëri reculer. waaw loolu yow yaa ngi seetaan ay combat loolu kay mën nga ko siise nit ñaa ngi seetaan ay combat du taxaw day càlli càlli fu ne mu aw fa. waaw. Giro daal li ma ko mën a wax maa ngi koy ñaanal wér di ko ñaanal wér ba le jour si yàlla miy kattanal doomu aadama may ma ndam ci kawam ndam lu set guy ma daan ko mu ñibbi ci jàmm ma ñibbi ci jàmm. moo la gën a ñeme fuuf Giro jëlal ñeme na jël ñeme ak dëgëru fit na jël lépp ba nu daje. waaw moom nee na day xeex di. di xeex moom xam kañ laa ko doon tontu duma ko tontu ci loolu. loolu duma noo non tontu ci xeex. moo tax doo ko tontu dafa ne dañuy xeex. comme dañuy xeex la wax duma ci tontu bu ne woon dama lay. bu ne woon dama lay duma. nee bu ne dama lay duma waxul dama duma de dañuy xeex la wax. waaw kon xam na ne man xeexkat laa. nee na xeex ak yow. waaw xeex la wax man xam la laa bëggoon mu wax. Ah. daf may duma bu ne woon daf may duma dinaa ko tontu Fatma ji am na question yoo xam ne man man du ma ci nekk sax di tontu. Ah, parce moom. moom bu waxoon ne maanaam nee na day xeex ak man na déggal loolu mu wax rek xam nga gars yi moom souvent dañuy wax loo xamante ne si bu demee ba le jour si ñu rocce ko ca ba mu set wécc ku ne day taxaw fale di balancer ay. dafa am fit te moom lu nee na lépp lu mu wax la nangul naa ko ndaanaanam waaye day daje ndaanaan waaw dafay daje ak ndaanaan. moo dàq kan moo dàq bëre Giro maa ko dàq bëre. yaa ko dàq maa ko dàq bëre de. moom wax na man xoolu may point fort man man mbër aw ma ci xool point fort déedéet man du ma xool point point fort mbër aw mais Giro la jour J li ma war a liggéey liggéey naa ko ba pare le jour J laay xaar mu jot rek. mais nag bu taxawee 3 minutes ñëw ay xale di bëre di xaarante 3 minutes te ngeen ne ay xale ngeen. Fallou Ndiaye daa xaar loolu ci ñun waaye loolu daa tax ñu fay ñu di xaarante ay 3 minutes. bu bëree ak moom bu moom ndax moom dafa mën a bëri moom ñeme nga bëri ak moom parce que tamit sa xeex xam nga xeex bien vrai que xeex kan nga mais moom Giro combat ak Nokia da cee wane boppam est-ce que yaa ngi bàyyi loolu xel. man yaa nga wax le tonnerre làmb nag baaxawut sax nga daanu naan damaa def nii wala damaa def naan. mais Nokia dafa juum waaw Nokia dafa juum Nokia ba muy nokki dëgg yaakaaruma giro kii ko de ndax man moom man ak Nokia bëri nañ comme ni ñuy def dëkk ba bëri nañ boobu mi ci diggu dem waaw mais tonnerre la am tonnerre. tonnerre taalibe sëñ Fallou bi la am. waaw tonnerre mooy lan pour bàyyil ba open presse giro nga laaj ko mu tontu la mooy benn dënu dënu ah, waaw waaw mën naa wàcc ci kaw giro seeraas waat ma ja giro seeraas giro am gars yi dañ lay wër nii di wax rek mais am na fit nag damaa bëgg wàgga googu muy indi gars yi buy bëri mu indi ma ko attan nga ko affaire moom la attan lool laa bëgg euh, damay profité dafa am koo xamante ne sii mënu ma ko ñàkk a woo nii nii nii muy Léna Gueye Léna Gueye sama jigéen day son ci man trop trop fii mu toll nii fépp fu mën a jaar rek boo génne bolo gi rek mu ngi koy def Léna aw ma fayam maa ngi koy sant bu baax moo ko monsieur le maire monsieur le maire Abdou Assis Paye maa ngi leen di sant Abdou Assis Paye nag daa voyagé mais xam naa combat bu ñëwee dina ci jàpp bu baax baax a baax koy woo ci combat parce que ñun ay doomu Colobane lañ Fass Gueule te dafa jot ñu jàppale ñu nag ci liñ nekk ndax promoteur bi ñuy xaar da di promoteur boo xamante ne si xale la di yëngu ci lam. ba waaw di yëngu ci lam. di yëngu ci yeneen. yaa ngi Fallou Ndiaye tey boo doon dawal ba sa pare-brise bi ne tes toj maanaam boo bëggee mu nooy danga koy seeti mu defaral la ko ci nu mu gën a jëkke ci nu mu gën a yombee kon xam nga ne kooku nekkalul lam dëgg. ba di ko feete incha allah rabi feet ba dinañ ci dem ñun waaw. biir ndax jour seen bi le 29. waaw si lay féetee 15 ans. fa lañ koy féetoo nag waaw. dinaa ko taalal gàtto sax. may wax nii da ngeen daal gàtto sax. waaw dinaa daal gàtto sax taalal ba woon mooy tonnerre xam nga parfois dafa am tonnerre yoo xam te ne bu bu kiiwee rek gars yi dañuy muur seen tele ñi muur seen seetu am na ñu naan tonnerre boobu dafa xaw a màgget est-ce nekkul ton ñi naan tonnerre léegi xam nga nekkatu fa tonnerre léegi dafa découragé ci làmb. tonnerre ba woon ak bii am na différence est-ce que réellement tonnerre boobu mooy ñëwaat. man Fatma du ma découragé ci làmb ndax euh, yàlla dama boole ay nit ñoo xamante ne si euh, dañuy ànd mu metti lool xàddiwuñu bàyyi ñu kon du man maa war a découragé ci làmb man toloogu ma man xale bu ndaw laa toloogu ma fu may découragé ci làmb jamono bi ma toll am na ñu ma gënoon a métti le fuuf te tey jii mooy loolu. ñu ngi leen dégg fu sori kon man aw ma ma lu may découragé ci lam déedéet lam dama koy jox cëram ba mu mot sikk bu entraînement jotee damay dem entraînement nekk ci li ma war a nekk waaw kon le reste yàlla moo ci des te yàlla mi am kattan maa ngi koy ñaan mu kattanal ma le jour si may ma ndam maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom. lan ngay xaar ci Guiro Seras. Guiro Seras aw ma leen lu may xaar ci moom déedéet. déedéet aw ma lu may xaar ci Guiro Seras. ñoom mat jàpp ko duma ko daan ko waaw. bu déggalee boppam ci li wax. mën euh, xaar kaaw ci ko bu déggalee boppam ci li mu wax. looy bu ci déggalee boppam. na ci déggal boppam rek ci li mu wax. moom na déggal boppam ci li mu wax moom Guiro Seras na déggal boppam bu baax ci li mu wax waaw. côté mystique côté mystique bi. gis nañ tamit macha allah yéen ñaar ñëpp moom da ngeen am musique de euh, foo leen loo leen di kii ci côté musique bi gis nañ moom macha allah da am musique. côté musique jox ko ko man loolu moom duma ci sax débat. wala soxla woo ci musique. fi nga ma gisoo ko lii laa gën a wóolu. en nag baaxoo na ku ne di ñaan ñaanlu ay muslaa ak yooyu mais côté boobu moom mooy loolu quoi waaw voilà. lan giro giro aw ma lu ma koy yóbbante aw ma leen li ma koy yóbbante li ma koy yóbbante dama koo gën a soxla moo tax ndam non aw ma lu ma koy wallaay aw ma lu ma koy yóbbante ubul lam yóbbante galgal ubul lam déedéet su bëre waaw na bëre na bëre mu bàyyi xeex bi mu waxoon bëre ah kum daje yaa ngi wax lu garaaw yaa ngi wax lu garaaw a garaaw bu ñu nee runkum daje baax na ba la suur si. lan moo ko suur si ba ñu àgg ci runkum waaw bu fekkee dinañ ci àgg. dinañ ci àgg. dinañ ci àgg waaw. ku ne ah. ñi ko yeb sax duñ ko waxee xalaat tonnerre. billaahi giro ñi ko ngem duñ ko wax xeexal ak tonnerre de ñi koy indi. déedéet. di ko ko wax. moom xam na wa. Ah. waaw. Ah. moom moo la gën a ñeme kay li tax duñ ko wax. waaw na jël ñeme. na jël ñeme. waaw. Ah. na jël ñeme rek bu la sursi waaw. amoon mbégte contentement pour yéen doon suivre sur Kewel Info Tonnerre 2 la ñu dalaloon xam nga li ma ko waxee woon sànq rek en route vers le 29 mu nekk sa stadium Iba Mar Diop mu nekk journée Ndiaye production ah Fallou Ndiaye woo ñu fa xam nga mu nekk loo xam te ne day fête wala 15 ans am de di ko ñaanal yàlla rek yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm salaam incha allah di wax gaa yëpp nañ ñëw ndax Fallou njaay tey buy fête 15 ans de carrière am wax dëgg yàlla moom macha allah di wax rek Tonnerre la mooy sa kàddu gu ma kàddu gu mujj di santaat yàlla rek di julli ci yeneen bi di ñaanal sama yaay mu yàgg fi lool ba fekkee sama njëriñ di woo ñiy jàpp ci sama combat ku ci mel ni Ousmane Ousmane Orel maa ngi koy woo ci combat bu baax a baax a mu jàpp ci billet yi Jibi Thiam maa ngi koy sant bu baax gis naa taxawaayam gis naa taxawaayam bu baax a baax a baax di wowaat sama monsieur le maire Ahmed Dieye mu jàpp ci bii yi moom tamit euh, dafa yor daraapoo tuubaatul man ma yor drapeau Touba Toul pare naa pour jàppale ko ci nag xam naa ne moom it pare na pour jàppale ma ci te ñu ngi kontaan ci moom di gis liggéey bi muy liggéey ñu ngi koy ñaanal yàlla kattanal ko ndax xale bu am ambition la ko waaw mu ngi liggéey lu rafet. Euh, di woo Massamba Niang laay bébé daan kebe ñoom góor a ñang mbay ñang bili ñoom ñëpp maa leen di woo di woo waa Colobane gi yëpp rawatina Cheikh Balla waaw. côté bi yi ñu ngi ciy liggéey li ñu war a liggéey mobilisation bi Léna Gueye Léna Gueye mi ngi ci loolu Léna mi ngi ci bu baax te yaakaar na di si demee dinañ jàkkaarloog euh, monsieur le maire monsieur le maire dinañ jàkkaarloog moom Abdou Assis Paye pour mu xool nu mu ci jàppee Abdou Assis Paye ñu ngi lay talal loxo ci komba bi di la xam ne ñun ay doomi Colobane lañ Fass Gueule-Tapée amuñu lu dul Fass Gueule-Tapée Colobane waaw di képp koo xamante ne si yaa ngi yaa ngi jàppale Tonnerre rek maa ngi lay kii Serif Serif bu Santos Serif bu Santos maa ngi koy sant di nuyu suma gars yi El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 76 98 76 532 64 17 Ndiaye Global Business mbégte kese la